ñu ngi leen di jaajëfal yeen ñëpp di leen bëggee di leen wax ni ñuy fexe information yi di jàll ñi nga xam ne tey bokk nañ ci réew mi te nit ñi boole mun leen ci réew mi wala ñoom ñu jàpp ni sax réew mi bokkuñu ci ndax fin toll ci réew mi nin leen suufeelee nin leen ñàkkalee fayda ñooñu ñëpp nañ xam ni ñin jàpp ni ñoom moom réew mi ak ñoom ñooñu ñoo yem ci réew mi xaj na ñàkk jël seeni responsabilité ak ñàkk am taxawaayu citoyenneté bari na ñuy sonn ci réew mi coono boo xam ne tey looloo ko waral loolu nag day dëgg ñu war koo wax parce que buñ xoolee léeg-léeg néew mi ngeen réew mi ngeen gis ay nit yoo xam ne ñu ngi leen di néewal doole ci seenu dëkk di leen néewal doole ki seen alal di leen néewal doole ki seen doole loola ñun sénégalais yi bu buñ ko gisee wuruñu koo seetaan dañoo war a jug jàpp ci seen combat boobu jàpp ci seen combat boobu du dem jël ay oto jël ay scooter dem sa dëkk booba jëli yat ànd ak ñoom di manifester ba police du leen manal dara déedéet mais plateau buñ toog ñu dénoncé ko fa rajo bu ñu invité ñu dénoncé ko fa di ko dénoncé ci sunu tiktok yi di ko dénoncé tey jii nii maanaam euh, tey fépp plateforme boo xam ne tey am nañ ko fa di ko fa waxtaane bu yàggee sénégalais yi dinañ xam ne kii kat lii ñu ko def ñoom ci seen bopp lañ ko def loolu dafa nekk loo xam ne lu jar a bàyyi xel la réew mi ñun ñoo ko bokk bu naan réew mi ñun ñoo ko bokk nag yu mel nii moo koy waral léeg leen nga gis nit ñoo xam ne teg nañ leen problème mu injustice di nangu seeni tool yi maam ya nekk fongole mi sénégalais yi gis ko xam nga jàpp ne kenn ku ci nekk lii kii di dund du la dal ëllëg mën nañoo dem a dem ba sa kër bopp gi nga am yaakaar yaak sa njaboot tey ñu ñëw nangam moo fay jaar bu koo yëkkati te tey duñ la dédommagé wala buñ la dee dédommagé war a entouré tey ba nga am geneen kër gu mucc ayib gu gën sa kër googu ci nekkin tey duñ ko def dañ lay seetaan nga nekk ci ay jafe-jafe loolu nag askan wee ci war di jug askan wee war di jël seeni responsabilité ci lépp lii nii nga xam ne tey jii nii maanaam ayib dafe mu ngi koy dund fi mu ne nii buñ buggoon mu jeex suba suba suba suba suba ci lënd bi war naa mën a jeex ñi nekk Dakar Dakar bu bu sa day dem ayib dafe day dem DGE ñu ànd ak moom waa Thiès jug taxaw waa Njaareem jug taxaw waa Ziguinchor jug taxaw waa Kaolack jug taxaw fépp fu taxaw man ko faa manifester ñu manifester ko fa ñu delloo Ousmane Sonko ay droit am jël waa Pastef jox leen seeni droit loolu noonu tey jii nii maanaam dafa des ci ñun ñun sénégalais yi liñ leen di wax gis ngeen Ousmane Sonko lépp lu mu am ci réew mi tey nit ñi naan ay génie politique laa jàmbaar laak dëggoo ma may dëgg day ànd ak taxaw temm dëgg day ànd ak taxaw tem dëgg day ànd ak lum la jaral daf ma koy jaral parce que nee nga yow yaa nekk ci dëgg nan am ab taxawaay am fulla am fayda jàkkaarloog doomiraam yi nekk ci réew mi nga xam ne tey lu ñu ñàkk jafe-jafe yu ñu dal ñoom ñu ko teg taxawaay bi ñu mën a am nag ba loolu dak moo ñu ànd ak détermination yéen waa Ndakaaru jamono jee passé bi Sonko nekkee Ziguinchor waa Ziguinchor barricade kër yaayam nga mu nekk ni gendarme yi duñ fi dugg duñ am accès ci président Ousmane ko am na benn groupe WhatsApp objectif départ de Macky am na ñu may seetaan xaj na ñu ci bokk nekk fii ñu bari ñu dikk Dakar taxaw di xeex di di di kaas nekk ci groupe bi waaw deux mille vingt et ñan ñoo doon xeex ñun waa Dakar ñoo dem section de recherche nangam nangam kërën këran yu kenn xamul bàyyi leen combat de yooyu. yi ngeen war a jugee mane seen bopp yu mel nii la xool leen nu ngeen àndee xool leen nu ngeen nekkee benn tey jii maanaam suba bu ayib dafe di dem des ngeen ànd ak moom gis ngeen tànk génnu leen ci mbedd mi lii Ousmane Sonko bëgg yéen a ko yor yéen jeunesse bi yéen a ko ko mën a jox Sonko wax na ko mu leer naññi naññi dafa am wax joo xam ne nag euh, moom leader la munu fee nekk di ko kii ñu bari di ko diaboliser mais bu ngeen gisee mu ni sama candidature ak ginnaaw yàlla yéen sénégalais yi laa yaakaar ak sama kandidaatiir euh, ci seen loxo la nekk yéen se xam na ko bu baax a baax a baax a baax xam na ni bis bu ngeen wàccee ci mbedd mii ñu ni Sonko génn nañ ko ci liste yi ci lu dul yoon ñu taxaw ate ko juge bi ni Sonko nañ ko delloo ci liste yi bis bu ngeen taxawee Sonko ñu delloo ko ci liste yi bis bu ngeen taxawee Sonko ñu jox ko ay pare parrainage am bis bu ngeen taxawee dootu leen dégg nit am fitu toog ci palaatoo télé yi naan Ousmane Sonko du candidat Pastef seen plan B kon bu ma gisee yenn soi-disant ay nit yu nekk Pastef lii may wax ngeen jël ko comparé kook seeni wax xam ne ñii liggéeyalun Pastef liggéeyalun Sonko liggéeyalun sénégalais yi loolooy dégg parce que Sonko amul benn pelente bu ngeen mës dégg ñu ni Sonko pelente na ko ma Samba wala ma Demba justice woo na kooku entendre ko laaj ko tey pelant bii ñu ko fi indee tey fan la ko teg li mu wax fan la ko teg bu dee lu mu jëf la fan la teg jëfam jooju amul kon kooko ñun ñu yàgg taxaw ni Macky Sall jàmmaarloo moo ko fiy jëlee yéen dem leen ngeen laaj sëñ man Mansour si Djamil fan la tegoon ne Macky Sall rapport de force moo koy jëlee ci réew mi wax jooja du tey bi sëñ Mansour Sy Djamil naan Macky Sall rapport de force moo koy jëlee ci réew mi boobaak léegi ñaata at la wax jooja du tey te wax jooju ba ko Jamil di wax yaakaar naa activiste yi la seetaan gis ni ñii ñoo xam Macky Sall ñii ñoo xam ne Macky Sall ay news nationale moo koy jëlee ci réew mi ah looloy dëgg taxaw leen am leen détermination nan yokk suñu fulla yokk suñu fayda yokk suñu pas-pas ci réewum Sénégal pas-pas bi nu joxe ni réew mi dafa war a changer far force pas-pas bi nu joxe ni tey dañoo war a réformer réew mi réformer institution yi loolu dan koo war a gën a mën a yokk buñ buggee Sonko nekk ci jafe-jafe yi nan yokk suñ taxawaay jàkkaarloog imbéciles yi amuñu lenn lu ñuy négocier ak ñoom loolooy dëgg tey loolooy dëgg suba mooy ginnaaw suba jug leen ñu taxaw jug leen ñu taxaw ñi nekk fii ci diaspora bi di leen wax sensibiliser leen ci wàllum santé bi amuñu ko seeni jabar amuñu ko seeni doom amuñu ko yàlla mi ñu tiim xam na ko dund gi lu mu fi seer mm. seer mm. seer Europe ak seer Amérique ak seer Brésil fu mu mën a seer tey yàlla mi ñu tiim xam na ne sénégalais ya fa nekk di dundu ak ya nekk Sénégal ñi nekk fii ñoo leen gën a yombale pour ñu jot ci parce que lu mu seer seer seer yaa ngi xëy weer yaa ngi fayeeku mën a am loo duggee marché jug leen ñu taxaw jug leen ñu taxaw warutunoo dee ci hôpital yi parce que am nañ ay ressources naturelles yu ñu garanti ay ci ay matériel de. Euh, matériel de la santé am nan ay ressources yu yu ci garante am nan ay médecins yoo xam ne tey mën na ñoo garante tey ci sunu santé parce que buñ demee bay former yeneeni réew di leen créer di leen former seeni médecins ci réewum Sénégal kon Sénégal am na médecin yu man a faj population Sénégal yàlla may ko ressource naturelle yoo xam ne tey jiine maanaam mën naa équiper santé ba sénégalais yi duñ jë duñ dem ci pharmacie yi di fa jënd ay garab li ëpp ci sénégalais yi mm-hmm. ñu dem pharmacie di fa jënd ay garab ñëw leen ñu waxante dëgg te ànd nekk benn jug taxaw xeex ak ñii xeex lañ leen di wax de xeex ak saay-saay yi parce que yéen ñëpp a xëy yéen ñëpp koy dégg ci plateau télé yi léegi journaliste yi sax léegi am nañ fitu wax ko damay gis léegi sax ay journaliste yuy def plateau di wax di jël waxi Macky Sall ji mu waxoon bi mu naan du def troisième mandat ni li ko fi dese fii ba le 2 avril dina fexe fexe ba lu justice dogal tey mu appuyer mu ñu appi appliquer loolu tey jii gàcceekat la Macky Sall kon xam ngeen ne Macky Sall doxul ci justice booba ba mu koy wax pour dossier yi Ousmane Sonko yoo xam ne tappale nañ ba yóbbu ko justice justice raje ko condamné ko ñu appliqué loola mais du justice tey jii nii maanaam mu ne Ousmane Sonko delloo leen ko ay droit am jox leen ko parrainage am candidature la dugal leen ko ci fichier bi Macky Sall waxul justice boobu kon na ngeen ko xam bu naan leen jug leen ngeen taxaw ñu jàmmaarloog saay-saay yi lool la billaahi ayib dafe mii na bañ a tàyyi nag na bañ a tàyyi mën naa indi élément déclencheur bi mën na koo indi mais dafay baagante ba sonn tant que sénégalais yi jugu leen dooleel ko dooleel ko Mbour dooleel ko Fatick dooleel ko Mbirkilaan dooleel ko Malika dooleel ko Kër ma Massar dooleel ko fépp yàlla mi ñu tiim xam na ni duñ ko jox ay fiches de parrainage am fan yi nag am na ay waa Malika yu bari yu may yu may yu yu may envoyé message nan ma. dangaa war a wax ci diggante Ablaye jóob ak taala Gajaga bugguma ci woon a wax de mais dinaa ci wax ngir genn genn wàll gi nga xam ne ba tey ñoom yeewuwuñu mais ñi yeewu te seen xel bàyyi leen ñuy fawee nit ñi ñooñu taxuñu may wax Ablaye jóob réeroowul ak Talla Gajaga dama bëgg ngeen bàyyi xel bu baax a baax lii ma leen di wax du ay waxi dof ay waxi nit la te bu ngeen ko dugalee ci seen cuukeel yi analyser ko xam ni ñii dañ leen a dépassé Macky Sall dafa tabbu Amadou Ba di mooy candidat Talla Gadiaga mënta dem ni ni ni ni ni ni ak Amadou Ba dedet il faut que ñu créer bu ko Ablaye Diop dem ñëw naan ko ñi nek ci sa entourage baaxul Bakary Gadiaga baaxul Tala Diallo baaxut ak ah ay ñom Badou Dia ñoo baaxul ñi la wër ñom Soulay ga yoy ñom ñoo baaxul non la ko mëna défé defee yeewu leen bëgg ngeen yeewu leen te nekk ay nit Ablaye Diop amut ak problème Talla Gajaga yéen la bëgg a tibb dem jaay leen Amadou Ba. moo tax mu ñëw di leen gëmloo naan Amadou Ba ay financement la ñu kii yéen pour yéen jigéen ñi parce que yéen jigéen ñi da ngeen a majorité ci réew mi te xamu leen seen bopp te yéen a gën a sonn ci réew mi yéen a gën a sonn ci réew mi yéen jigéen ñi. yéen a gën a sonn ci réew mi yéen a gën a am ay jafe-jafe ci réew mi taxaw leen Ablaye Diop réeroo wut ak Talla Gajaga fu ma ko fekk toj ndeyam ndayam réeroo wut ak Talla Gajaga Talla Gajaga gën a toj cottu ndayam mais Ablaye Diop dafa bëgg a takk yéen population Malika dem jaayi leen Amadou Ba léegi nag bu àndee Talla Gajaga te ñu bari ci population Malika fi mu ne dañoo gedd Talla Gajaga Ablaye Diop la mën a délégué pour mu leen di jël benn ak benn bërki démb rencontre am bi gis ngeen. danaka ña fa nekk ku ci taala nga nga xey soxla nga wuy jiko yewu len ngeen yu seen mayen yi réeroowun de ngeen ko eh, duma ko wax lu ñaaw ta yeneen nit nga man leena wax lu ñaaw nga ndax lan taala ga jaga do ko wax lu ñaaw ndax ruus nga suba jàkkaarloog ay ak njabotam mais yeneen nit yi ngay wax lu ñaaw tan njaboot comme taala ga jaga ci biir dekk bi lan mo leen wutale taala ga jaga bu de ak njabotam ngay bañ ëllëg xol leen ñoo ñu amuñu njabot abla job dañuy toj sa ciortu nday amadou ba wa malika bu len ko paranel tay bu len ko paranel suba bu len ko paranel ginnaw suba ni ngeen gedde nday taala gadja gami ni ngeen ko gedde nday amadou ba momu seen carte d'identité yi na ngeen ko téye élection locale yi passé gis ngeen li ablay diop doon def bim démé ba xamné tay ñu bari ci wa malika duñ ko voté da doon jënd ay carte d'identité 50000 25000 pour ngeen baña a voté bu élection yi paré mu jox leen ko parce que yeen ñoñu ñëpp bu ngeen voté won sanctionné nday taala gajaga yewu leen yeewu leen ngeen nekk ay nit yeewu leen ngeen utiliser seen xel yi yeewu leen ngeen xam ne am réew détermination moom moo koy defar baykat yi coono bii ñu sonn tey jii nii maanaam détermination sénégalais tax mu war a deñ engrais tey ni ñu leen ciy sonalee ñaaw na gerte bu ñu leen koy jox ndeyam ngeen di dem ci seko yi jiwu dëgg ndeyam lañ leen di jox jiwu yu daraa ci baaxul bu ngeen bu leen bu dee saaku lañ leen jox mu nek 50 kilos bu ngeen ko tané ndeyam fekk lu ngeen ci am li ci des sax mënu leen ci am rakal ju bax parce que day bënn am ay sax yewu leen nek leen ay nit yeen baykat yi yewu leen nek ay nit yewu leen chaque jour yeena a ngi génn di joy ñun baykat yi considé parce que yeena a considéré wul ndayam seen bop ci dëkk bi yeena amul nday ful la amul leen fayda ku yor kat kat bu kilimé fekk leen ci all bi rek ngeen yaakaar ne mu ngi ci aljana seen xalaatu sénégal yi bayi leen ko ku ci tëdd yaakaar ne yaa ngi fanaanoog uuru ay nii di ko katt takkala daxaa dëgg ndeyam boo yeewoo xam ni da ngay duul bàyyi leen ay caaxaan ay caaxaan baaxul taxaw leen réew mi détermination moo koy changé Ousmane Sonko fii mu nekk lii ñu leen di wax billahi bu leen ko Tunkara waxee mooy dëgg bu leen ko Mollah waxee mooy dëgg Akhenaton nag jigéen ku leen ko mën a wax Kayz Fof Mame Sène ku leen ko mën a wax Ibou Fall loolooy dëgg parce que dañoo xalaat dem ñun dañuy waxtaan dem ba xam ne Macky Sall bi Sénégalais yi jóge Mbour jóge Fatick jóge Sibi Xotaan kër mbay faal ak fépp ñu taxaw ci ndakaaru jàkkaarloog Macky Sall toccootu ndayam gis ngeen waa yarax bu ngeen déterminé woon xëy ni rompoye kàppa camion ndayam du du jóge port camion du romb ndayam fii ah waa Pikine jug rompoye ndayi lobat faal bii tey oto du wër ndayam wa paduwa nday jug rompoy nday paduwa bi auto du ko wër ngeen topé ko nonu wa sikamba waa jeksaaw ngeen japp jàppoo ko nonu jam gën kàmbareen billahi wal kitab 24 heures ñu jox nday ay gafé ay kiyam ousmane sonko ñu leen mu ngi ci fils bi lolu ab taxaway la laaj taxaway bobu nak duñ ko xam ba pare ñew nekk fi di leen defal naan leen waaw gagné nan ba pare nan lan gagné nung gagné sonko nekk ci kasso bi déclaré wat grève de la fête sonko man damay koy man duma xalaat gis ni sonko kat li ñun suñu gàcce la ñun ñii te duma ko wax gis nga sonko grève de la faim bii mu duggaat sunu gàcce la ñun sénégalais yi ak gàcce yi mu ndaxaa mbàkke mi ko joxoon tàndarma ji ni ko na dog dina jublu ci ay mbiram man loolooy dëgg ku ma ci mere sa digg lëfal nday gàcce yi mu mbàkke la ak sunu gàcce ñun peuple sénégal bi ànd ak ousmane sonko ni dañuy changer réew mi man damay wax dëgg ginaaru ma nen dëggu gi yàlla gi laay wax seen ginaar nenu ma seen ginaar yi bàyyi nenu ma ginaaru yàllaa ma nen waaw sunu gàcce la ak gàccey sëñ Muntaxa Mbàkke billaahi wal kitaabe ak gàccey ñoom Habib si ñoom sax ci population bi leen bokk sunu gàcce la ñoom Habib Seck Aïda Mbodj ña génnoon di bënni bët di jooy dañuy ndeyi duul yàgg ngeen ci réew mi ni développement Sénégal moo leen ñor yéen ñoo ñëpp ngeen bokk ci ay parti politique bi Ousmane Sonko di ñew di sos Pastef yeen ñi fi nek ñepp fekk na tay yeen ngeen nek ci ay parti chaque élection ngeen ñew di rancé wu ci ay nit ñi naan ay candidat lan te kenn amu ci programme bi bi mu am Ousmane Sonko kañ la ñew ci langue politique gi ñew wo leen ci la solution. solution laa leen woo ñëw leen ci solution bi yéen sénégalais yi ngeen war a ñëw solution solution pour changer Sénégal ku ne indi ci sa xam-xam baykat bi daan ne ñun baykat yi de solution bii buñ ko amoon ngeen xalaat ci yéen sàmmkat yi ngeen xalaat ci yéen nappkat yi ngeen xalaat ci artisanat yi ku ne ngeen xalaat ci handicapé yi mouvement yéen ñëpp ngeen war a xalaat ci mouvement la ci ci livre la solution de développer Sénégal ñu war cee xalaat ngeen indi fi nday ay affaire de merci yu dëgg ndayam yi daañu toj seen cottu nday ba ngeen xam ne ndaw ñu am nan baat ci réew mi billahi wal kitaabi du ngeen ñu toroxal ñu toog di ko seetaan yàlla ni ñu tiim xam na ko li may wax nag yéen waa Sénégal yéen laa koy wax de yéen ñi taxawoon téere yi ki di Kër Masaar ak téere akapes man ba Sonko di taxaw ak yéen akapes sama chaise bii laa toog di ko déglu ba mu taxawee ak yéen euh, euh, téere yi ki fii laa toog di leen seetaan di ci def sama dërëm ak sama ñaar dërëm bi muy ànd ak yéen ci mbedd ndakaaru yeeg mbedd parcel yi fii laa toog di ci def sama dërëm ak sama ñaar dërëm di ci def samay sorti man la ma nekkoon ba tey maa ngi ci kon yéen Sénégal doomu xaraam yooyu nekk foofu naan leen yéen a nekkul ndeyam ci la ngeen nekkoon ñun la ñu nekkoon ba ngeen xam ñu ci xeex bi ba ràññee ñu naan leen ñëw leen ba tey ñoo ngi ci te ba tey yéen a ngi gis ne suñu xeex bii dafa am résultat te ba tey gis ngeen ni ñii ñi di toj seen jottu nay xam ngeen ko bu baax a baax xam ngeen ni grâce à activiste yi Macky Sall donte faale wuñu faale wul sénégalais yi mais xam na ne activiste yaa ngi toj jottu ndayam yéen ñëpp ci teg seen bët kon ñun lañu nekkoon ñoo ngi ci yéen ñu doon toj jottu ndayam démb nag nekk ci mbeddu sénégalais yi continuer leen wàcc toj jottu ndayam ñun fa nekkoon ba léegi ñoo nga fa Macky Sall saa bu xëyee ñu ngi toj cottu ndayam dégg seetaan ngeen Ousmane Tunkara démb xar na cottu ndayam ba mu nekk ni seetaan ngeen ko Akhenaton bu ñëwee def noonu Morgan bu ñëwee def noonu jiji yéen liveurs yi fi nekk askan wi xàmmee nañ leen li ma sam benn waay doon wax ni ma man dama seetlu campagne bu ñëwee nga gis ay sénégalais yu bari ma ne ko ñooñu nekkuñu ñoo xam ne jafe-jafey askan wi moo leen yëkkati ñooñu ay politiciens ñoo leen di gemb te dina leen xool. légi campagne yi commencé légui ngeen gis ay live yu bess mais yeen sénégalais yi du ngeen ay nit xamulen ñi taxaw ci seen jafé jafé ku bess ngeen xam ku bess ngeen xam bayi len caaxaan yi ngeen nek ñu bayi al topé bi nek ta ku ñi al topé ñu al topé laak suñu njariñ bayi len ay ay baxul rew mi ñun ñoko mëna changer biram lay bu génné di di wàcce seen tension day duul Abbas Fall bu génnee di wàcce seen tension day duul Amadou Ba bu génnee di wàcc seen tension day duul Aline Gueye bu génnee di wàcce seen tension day duul Guy Marius Sagna gi nekk Europe ak fépp Sénégal day duul na dem Sénégal na wàcc actuellement nii jamono ji jamonoy xeex la sénégalais yi dañoo pare lii may wax amul benn Sénégal bu toog sénégalais bu toog di ko wax ñun nag yeewu conscience ànd ak sunu liberté moo tax ñu di ko def kon Guy Marius Sagna fi nga dugg amuñu problème mu santé amuñu problème mu seen jabar yi di accoucher amuñu problème mu xëy amuñu benn problème fa nga jóge la xeexal lan am problème dem leen Sénégal ngeen taxaw ñun dëgg la ñuy wax gii Marius Sagna man dëgg laay wax de li ngay def rafetlu nan ko trop maa ngi dégg ay nit naan ay Sonko la ko sant man gëw ma ni Sonko moo la sant lii Sonko bu dee santaane résistance ci biir terrain bi lay santaane ngeen sunu résistance bii ñuy def Macky Sall ñun fexe nan ba Sénégal ñëpp taal fa ay làmp taal fa làmp yi mooy duulal nañ ko Brésil ba waa Brésil xam ne Macky Sall dictateur la fenal nañ ko Amérique ba waa Amérique xam ne Macky Sall euh, dictateur la France gi ci nekk ak Allemagne ak ñëpp a ko xam teg nañ ci seen bët yi. li Macky Sall def réew ci réew mi génne nañ ko wan ko waa bitim réew fen leen ko ni leen mu ngi nii doomi raam la ñëpp nag a ngi xippi seen i bët di xool Sénégal démb Tunkara mu ngi koy wax ci laay fam bi Macky Sall dootul jël arme di tiire nit dëggal leen seen bopp comme Sonko ni mu dëggalee boppam nekk ci grève de la faim diaspora bi dëggal seen bopp comme ni mu ci nekkee woon démb ba tey yéen ñi ma yàggal ci man nii ngeen ma xamee man la ma nekkoon juguma ci dama koo yokk sax li ma ci yokk léegi di liggéey ba weer dee di jël sama dërëm ak sama ñaar dërëm di fexe nu nu mu jaree ay cocktail Molotov man damaa yokk la ma doon def jugleen ñu taxaw man gis naa fi ñoo xam ne Malika bi Sonko di campagne dawee na nday Malika ba yëmbal topp ci combat bi mais eh, combat bi passé bi ma leen nee vedette bu Malika bi loo ci man bàyyi oto yi ñu dem lan ci man nee nan mais sonko mën naa ñëw ñu ànd ak nit ñi dawa daw ba yëmbal sonko sonko mais bu nu wootee teg ay plan d'action pour libérer sonko ni nañ taxaw waa malika du ngeen di taxawee yéen ñi nga xam ne toppoon ngeen ndey ci convent sonko kër masaar ba malika malika ndeyam ba yëmbal sonko jaral leen loolu ci mbooloo ay ay statek ngeen di ko wan nit ñi nangam te bu xeex taxawee yéen ñëpp ngeen toj seen cot yéen du ngeen ay gor moo tax nit ñu bari maa yey ni dootuma wax ak yéen parce que ay doomu xaram ngeen man ma len xam duma burkinabé duma malien ba ci brésil gi sénégalais yu bare bare parce que dama len xam du ngeen tus ñu bari ci yeen ay doomi ram ngeen li ngeen di woote gëmu len ko motax ma radical ci sen kaw di ngeen di dëggu jël seeni responsabilité bu jàmm amé ñepp bëgg a bu bu bu bu bal yi dé tak melni pétal ñepp daw chongo mas na ko wax ne billaahi wal kitaab bi nee na dañuy taxaw mais bu benn grenade tàkkee yéen ñëpp ngeen daw loolu gàcce la te ko gis ngeen ko mu ànd ak ay garde kooram gaa yi topp ko di di ko gërë barki Seydina Muhammad keroog Kara Mbàkke sax daa génn awye ni Sonko ku am fit la ku ñeme la Sonko moo tax seen parti yi topp ñu ndayam parce que xam nañ ñu yéen sos ngeen ay parti mais fit wi ngeen war a incarner mi leader war a yor ni ngeen war a taxawee pour laaj réew mi ñu dindi fi système bi amul leen nday fit yooyu moo tax ñun dañoo jël suñuy responsabilité ñun ndaw ñi dootuñu topp ndayam ku amul xam-xam te duñ topp nday ragal dootuñu topp ku amul xam-xam te duñ topp ak tàppet parce que dem nañ ba gis ñi yéen ñi cottu ndayam ci seen lafu sër yeeg biir caay yi leen jube mais yéen lu ngeen ñu juree ba pare ñun ñu ëpp leen ndayu fit gën leen a mel ni gaynde gën leen a taxaw gën leen a bëgg réew mi ngeen xam ni dund ngeen fi ba jur ñu yéen a bon yéen a bon ay nit yu yées ngeen ay nit yu soxor ngeen loolu ngeen def yàlla nag seetaan googu ngeen seetaan yàlla ci réew mi ci askan wi moo tax yàlla boole leen ak ñu mel ne Akhenaton nag Ousmane Tounkara ak Djidjiek Kayz Kof ak Morgun ñiy nokk seen datab ndey du ngeen ci man dara ñu katt seen ndey ngeen ñu seen ndey ngeen bi mu ngi xeeñ de li nga teg ci gaz bi mu ngi xeeñ jugal ah bàyyi ay caaxaan ay caaxaan bahul ay caaxaan bahul and len ak determination bu ngeen di wote mbir da len ci fek amu len ben responsabilité bu camara yi takke mbolo mi taxaw ku nek yëkkati sa sinap ku ne ngay gis daf len di jaral wax ba joy barki alcorane da len koy jaral jamono bi bin fi wote campagne tal boto amna ci wa Malika yo xamne bima len tambalé di envoyer message pour ñu juk def effort parce que jàpp na ni Sonko jaral na len lolu jàpp na ni Sonko jaral na len couper courant Malika couper ndoxu nday Malika ba wa Malika gep juk taxaw ni Sonko lan japp jappon nako jappon na ni jaral na len sax seen bakken yi jappon nako moo tax nag nattu bii yàlla teg suñu kaw dinañ ko ànd ak dignité ànd koog suñu responsabilité nattu bii nga xam ne doomu xaram yee ñu ko teg dinañ jug jàmmaarloog yéen toj seen cottu nday ba ngeen xam ne nattu bi ne yàlla teg xàmmee nan ko bi ngeen ñu teg xàmmee nan ndayam dinañ dëgg seen nday ba ngeen xam ne réew mi am nañ fi kàddu doomu xaraam yi ngeen doon lu yàqu ci réew mi yéen a yàq ndayam lu bon ci réew mi rek yéen a ko yàq assassin malfaiteur vaurien imbécile du ngeen nitu dara tekkiwu leen dara ci réew mi bu ngeen jugee naan ñu ay république yéen doomu xaraam yi yàgg nañ leen a wax organisé wu leen ci bi seen biir kàcca yi kon heure dina leen fekk yéen ñi doon saaga Moustapha Diakhaté yëpp katt leen seen cott nday Moustapha Diakhaté ci réew mi comme yéen seen cott nday Moustapha Diakhaté leen gën katt leen seen nday yéen ñi doon saaga Moustapha Diakhaté yëpp nag laax te nekk ci biir réew mi seen cott nday bu ngeen amoon taxawaayu patriotisme taxaw ni ngeen war a taxawee chaque jour ñu ngi leen di kodeel mais mënu leen koo décortiquer genre yi da leen di wutal campagne bu dara nee karaj mus opération Moustapha Diakhaté la karaj opération diw la karaj opération diw la mais du ngeen def ndayam di leen seetaan ñaata live laa ci def bi dëkk bi yëngoo tëj leen ndayi gémmeñu Moustapha Diakhaté parce que lii laa doon bañ bis bu leen jekkoo ñëw di saaga seen nday man lu ma Moustapha Diakhaté saaga yéen laa koy katt seen nday delloo yéen boy yi ci terrain bi te waroon a toj cottu ndayam yéen laay xar seen cottu nday fii ak cinquante ans jigéen moo fi war a jur ku mel ni yéen katt leen seen ndey Moustapha Diakhaté li mu leen wax moo yey wax leen ko ku toll ni Ousmane Sonko ñëw yee leen jële leen ci jël jële leen ci ci ak jaahil yee leen ubbi seen bopp yi ci réew mi ngeen xam institution yi article trente sept ak L vingt quatre ak L vingt neuf ak lu ne ndeyam ngeen xam ko léegi ndeyam ci réew mi xam seen recherche yi xam seen thorium xam seen pétrole xam seen gaz xam seen marbu xam seen calcaire xam seen thorium xam li ci réew mi xam financement yi nin koy tappalee di ko sàcc ngeen xam ndeyam Sonko yee leen ci loolu gaayeen mënu leen koo kii moo tax Moustapha Diakhaté dari leen yéen mérité wu leen Sonko loolu la leen wax mais yéen a déggul wax ji moo tax yéen lay xar seen cott nday Moustapha Diakhaté moom yéen a gën a xam ne bu ma koy jàpp de baxal ndayam ci cin mais wax ji yéen laa ci mere ndayam parce que mérito wu leen Sonko xam na ne cinquante yu nekk benn yoon lay ñëw cent ans yu nekk benn yoon lay ñëw te ay doomu xaram ngeen yéen ay doomu xaram ngeen ay doomi raam ngeen mérito leen Sonko mérito wu leen ko da ngay gis ko xamne mu ngi ci terrain bi tak ñaata barasé la ñaata cocktail monotov yoo xam ne tey quartier bi nga dëkk tay bu ni won xóob amna lo xamne bu ko sénégalais bu ko bu ko wa bat bu ko wa bar ñi défé wa malinga buñ koy gis diko def wa yëmbal buñ koy gis diko def mais dafa am lo xamne du lu ñuy parce que du lu nit ñi yëgandoo di def benn benn ci lay tambalé du ngeen ay nit supporter rek ngeen man supporter nit topp nit ak seeni moto peep peep mais wàcc ci terrain bu jotee yéen ñëpp ngeen lem ko ndayam bàyyi leen ay caaxaan ay caaxaan baaxul taxaw leen taxaw leen taxaw leen ñu dëggal suñu bopp duñ ko xeex ndayam ba fii gaayam ay nit di ñu bàyyiloo yéen bu ngeen déggee ndayam nit naan leen yéen Macky Sall bu ngeen xeexee Macky Sall lay arrangé yéen war ngeen koo gëm ñaata fan ngeen xeex 2021 lu waraloon Samba Abidjan Macky Sall ñàkkoon nday nguur gi lan moo tax Macky Sall jotaan nguur gi sëñ Muntaxa Mbacke ak ñoom sëñ Bas porohan ño joxaat Macky Sall nguur gi mais Macky Sall ñàkkoon na nguur gi looloy dëgg kon yeen bu ñëpp ñëwee di leen gëmloo naan leen ba Macky Sall bu xeexee day àndale élection yi booba daa fekk Macky Sall tal ko daa fekk mu tal ko di da fekk mu tal ko da fekk ngeen tak nday seen bop dem jébbal ko Macky Sall mais bu ngeen tinké seen loxay ku ne ŋàpp saw xéer ak sa cocktail tof ak saw yak dox ndayam uti pale kala xaa deug ndayam novembre bi du fekk Macky Sall du ko fi fekk mu ngi tax ab aajawu ci seen détermination seen ak seen taxaway ñun li leen man de encourager leen and ak yeen bi di tek ay troupe ci souf nit ñoo xam ne jàpp nañ ne yow buñ la fayee nga defal nga taalal ñu poste courant wala nga taalal ñu poste téléphonique wala nga taalal ñu poto lampe dañ koy def néew ci doolee tax nag effet yu bare bare gisu leen ko mais am ci ñoo xam ne toog nañ ay guddi xaw nañoo duul parce que gaayee fa jaar jug leen ñu taxaw réew mi bu leen jaralee da ngeen koy wane Tungkar lim doon wax ci live bi deug la man da ngay live ba paré nit yi sa way yu sa live bi mom neex na de sa live bi mom amna solo sa live mom sénégalais melni mom bokul ci sénégalais non non sénégalais ta mom mu ci melni mom bokul ci sénégalais génn na ci bopam nek na ab burkinabé mom ñew taxaw seen tiaxan yoy bàyyi len ko yag nañ len ko wax man 5 jours man nañoo def ñetti live mais après mu teggu ci kaw lan ngeen seetaan ñu de dem togi. ta buñ koy def pour génne ay stratégie la pour li leen nakari ñu bu ngeen ko fàttee ñu tegal leen ko ni dañoo wara xex li lan ñu def ñu wara xex li li lan ñu def ñu wara xex Macky Sall 2012 bi muy ñëw saaku ceeb bi mi yoron di di di ko di ko campagne loola jar naa dafa ñew campagne dundu ñew campagne gasoil campagne sax ay xëntkat yoo xas transporteur yi tey la gën a bon ñu leen ñu waxante dëkk ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di leen wax ni nan yokk suñ taxawaay te ni réew mi Sonko pour mu jug ci jafe-jafe yi ñun rek ñoo mën a jug ànd ak détermination wàcc ci mbedd mi jàkkaarloog doomiraam yi duñ ko xam nag ñëw di leen wax laneen duñ ko xam ñëw di leen wax leneen loolu doo ko tax mënuñu leen a wax leneen ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp.